asalaamaaleykum euh, mbokk internetu wasaare news ak Dakar midi ak lii di news 221 tey ñu ngi fii si Hann Maristes euh, li ko waral nag mooy élection locale yi nga xam ñu ngi fay waaj a jublu ñu ngi fay léegi ñu jublu fa sax ndax dimanche lañuy woote ñu dalal benn candidat candidat bi nag mu ngi dëkk fii si euh, Hann Bel-Air Hann Maristes ñu naa jox mu présenté wu ak suñu mbokk internet yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu bu baax maa ngi leen di ziar di kontaan seen teewaay fii. Euh, Abdourahmane Camara nag doomu yaraax la doomu commune bu Hann bel euh, maa ngi juddoo yaraax maa ngi yaroo yaraax maa ngi jàngee yaraax euh, foofu laa lee tamit yàlla suturaal ma tamit sama biir réew tamit laay exercer maa ngi liggéey ministère de la justice au moins depuis dix huit ans nekk gestionnaire nekk à la DAGE du ministère de la justice à la direction de l'administration générale et de l'équipement également syndicaliste là depuis huit ans nekk dans le bureau du SYTJUST dans le bureau exécutif national donc euh, douze personnes yi dirigé pratiquement mille cinq cent travailleurs euh, foofu la bokk euh, maa ngi leen di nuyu je suis également le président du mouvement Agir et Construire tabax ngir ëllëg Agir et Construire nag est dans la coalition la troisième voie sàmm jikko jàmmoo jariñ Sénégal li nga xamante ni professeur Amsatou Sow Sidibé moo ko jiite Euh, may candidat di tête de liste la commune d'Anne bel kon bootumu ci ginnaaw kenn alors acteur communautaire la aussi au mois depuis vingt cinq ans. waaw euh, campagne yi xam nañu commencé na lu yàgg mu ngi waaj a tëj lan ngay jàpp ci sa campagne lu loo xam ne positif na wala négatif. oui euh, boobu ak léegi ñu ngi sant yàlla bu baax ndax ñun dañu waxoon nii dañu ñaan yàlla tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim yeggale alhamdulilahi rabil alamin ba fi ñu wax ak yéen ngi sant yàlla bu baax. Euh, ndax sur le terrain ñun également dañ waxoon yoon bii ñu jël duñ ci ut noonu duñ ci utal kenn noonu ñun suñu bopp duñ ko ci ut euh, mais également dañ waxoon suñu slogan mooy ut ci sago am ci sago yor ci sago ëllëg delloo ci sago alors looloo tax euh, suñu pré-campagne ak suñu campagne yëpp mi ngi déroulé wu normalement le plus normalement possible dans les élégances et la courtoisie. comme ni nga ko waxee. démarré nga sa campagne ba ñu ngi waaj a tëj lii di campagne électorale yi élection locale yi sa programme doo ko doon xayma nan ngay nan fan ngay débuté ak fan ngay jeexalee. Euh, incha allahu taala ñun dafa am lu ñu bëggal suñu askan. Hmm. mais loolu dañu ne ñun suñu ay yéene ak ay mëbët la ñuy wax mais li ñu gëm mooy kaay leen ñu uti euh, suñu amee kaay leen ñu yorandoo loolu la ñuy waxee co-gestion co-construction hmm. loolu nag. dañ koy def ci penco ndax dëkk dañ koy penco alalu ñëpp la cogestion ko construction boobu et de notre unité de notre fraternité mais de notre commune euh, pour une gestion euh, de nos ressources autrement et mieux donc pour que suñu koom suñu alal suñu déggoo suñu juboo tey ak ëllëg gën a ñoŋ lalu ci xam-xam ak jàmm alors loolu nag ñun ci suñu vision dañ ko takk ci ñeenti takk Euh, li ñu gis mooy pour ñu développer commune bu Hann bel te lii nag dañ koy wax tey ndax yéene lañ am ak mëbët dinañ ko joyanti incha allah le 23 euh, janvier au soir population yi gëm naa dinañu voter massivement ñu gagné euh, suñu gagné incha allah taala dinañ xam dëggantaan lan mooy la réalité su boobaa tam ñu joyantiwaat suñu gis-gis bi ñu amoon dëppale ko ak li nga xamante ni mooy dëgg-dëgg li ñu fekk ci terrain bi candidat lañu bu am ay mëbët am ay yéene ak ay yéene yu sell nag yooyu la waxee donc bi ci jëkk ñun ci axe yi nga xamante ni moom la ñu bëggee diriger commune bu Hann mooy euh, l' éducation et la formation mooy jàng ak jàngale ak lépp lu aju ci jàng ak li nga xamante ni wàllu xarala la ak euh, métier alors donc mooy la formation euh, beneen bi mooy la santé et l' sociale moom mooy lépp lu aju ci faj ak faju ak këru fajukaay yi ak yaxanal ak yéwénal ak yërmande gi ci war a nekk Euh, ñeenteelu axe bi ñu ne le développement du capital humain mooy euh, ñaata nit lañu am ñu xayma ko ñu ne Hann Bel-Air am na téeméeri junni nit on nous avons cent mille habitants ñu ne cent mille habitants yooyu yell na ci ñu xam ñaata maçon lañ am ñaata tailleur ñaata pêcheur ñaata intellectuel mais ñaata xale lañ am ci ñu nekk ci l'école yi nga xamante ni ñu école élémentaire yi ñan ñaata ñoo ci war a dem élémentaire euh, maternelle mais ñaata étudiant lañ am ci université wu Dakar yi ndax loolu lim ñuy jural mooy tey ëllëg lu fi ruus ci wërsëg balaa keneen jóge biti jariñoo ko doomu comme ni jariñoo ko loolu mooy le capital humain euh, beneen bi muy l'environnement et le cadre de vie ñeenteelu axe lépp lu aju ci alam bi ak dëkkuwaay ak dëkkin nan yan yan pexe yan yoon lañuy xal xàll ba bu ëllëgee lépp luñ ci am mu gën a ñoŋ gën a sell gën a baax comme ni nga ko waxee sa programme euh, Alé Sandra mais l'actuel maire l'actuel maire moo fi nekk nekk si benn coalition bu mag. mu yeewu askan wi. Mhm. moom nga xam ne euh, def na fi réalisation ba pare ñu bëri kañ nañ ko. Mhm. ubbi na fi maison de la jeunesse daara moderne di jàppale askan bi nan maanaam nan nan nga compter euh, pour jëlee ko fii nii. bon au soir du 23 euh, treize ans la fi def. lajj ci bépp boor nag ñun duñu ŋàññaate ñun duñu xastaate ñun duñu mabal kilifteef parce que également la troisième voie ak le mouvement agir et construire euh, dañu bëgg nekk des gens sereins euh, duñu ay nihiliste li fi def néew na néew goo xam ne bu fekkoon am nañu fit lool dañ naan def fit dara huit milliards de budget la am lu mu gàtt gàtt dina recouvrer entre cinq ba sept milliards chaque année manoo gis benn investissement bu avoisiné cinq cent millions réellement bu dul surfacturation si commune bu Hann bel ci treize ans yi Hann Bel-Air amul plan de développement local amul plan d' investissement communal Hann Bel-Air am ressources yëpp pour financer boppam à quatre vingt dix huit pour cent ndax Hann bel am na quarante kilomètres Hann bel am na cent mille habitants Hann bel ci biir commune am na lu mu gàtt gàtt cinq cent entreprises ndax plus de quatre-vingt pour cent di tissu industriel sénégalais se trouve sur lax Thiès Dakar les soixante pour cent se trouvent dans la commune de Hann bel <coughs> ñu am le parc de Hann am la baie de Hann la plus belle baie d'Afrique la deuxième baie la plus belle au monde amul benn njariñ boo xamante ni yii yëpp mën a limal dinañ ko jural commune bu Hann bel ba Hann Bel-Air ci mën a gis boppam ay doom man ci gis boppam buñ mën a nekk entreprise yi commune yi du ñoom ñooy ut liggéey te ñoom ñoo joxe liggéey xam naa ko waaye xam-xam mooy yor commune man maay dagaan baat askan bi tey ne damaa bëgg ñu fal ma suñ ma falee dinaa fexe ba doom yi nga xamante ni dañ toll ci am seen yaay nekk ci jafe-jafe dinaa leen yewi ba ñu yewi seen yaay eh, ndax man ci doomu ñooñu laa bokk man sama yaay néegam bu njëkk comme yaay yu bari ci biir Yaraax néegu ñax la woon ay barak ay zinc ñun la suñu yaay yi doon lebalante ceeb ci biir commune bu Hann bel kon jafe-jafe xam nañ mais an Bel-Air la ñu fooye fa la ñu commune bu Hann bel yaraax nag laay wax fa la ñu dawalee Sénégal marché bi nekkoon suñu ay toolu papa ñu fi doon ñëw di sàmm ay xar di jàng suñuy ay leçon ci kaw ay garab donc ñun xam nañ leen mooy jafe yi jàng fa dawal jàng fa bii jàng fa këll jën donc di fay di dem booy ba donc ñooñu ñoo màgg tey di laaj seen commune am légitimité sociale dinañ leen wax lan mooy légitimité sociale commune bu Hann bel aberration yi laay ñëwaat ak yow pour nit ñi comprendre les internautes qui nous suivent Colline bu Hann Bel-Air euh, la baie de état du Sénégal daf ci def soixante treize milliards pour seggaat ndox mi kese ndax jën yi mën a dellu siwaat koom bi war a ñëwaat waaye dafa tabax tamit benn intercepteur boo xamante ni dafay jóge port de Dakar dem Petit Mbao quinze kilomètres di segg lépp luy ndoxu tooke ndox bu bon ci biir quinze kilomètres yooyu commune bu Hann bel dafa am ay cité yoo xam ni tey ñoom ñëpp waroon nañ ci ko ne ndax intercepteur boobu connecté nañ ci environ deux cent entreprises te ka koy defal le maître d'ouvrage délégué mooy ONAS ONAS suñu biir périmètre communal la nekk entreprise bi ñu jox liggéey boobu muy Pfeiffer mi ngi ISRA 1 ISRA 1 ISRA 2 Marinas amuñu assainissement la cité Belleville amul assainissement vous vous rappelez les eaux pluviales de 2005 Belleville xaw nañoo xaw nañoo xaw naa sax réer ci quartier bi. parce que askan nga baal ma askan bu bëri fii ñoom loolu la ñuy jooy. jege à quelques mètres kii euh, océan bi. ak lac yi fi nekk ak bassin yi. ba léegi loolu mënu fee jógee. mais moom laa lay expliqué jafe yooyu laa lay expliqué euh, bu ñu amoon commune bu am xam-xam mu bind plan yi mu a bind bind projet yi mu a bind di ko dëppale. ak état du Sénégal am laami soo bi war ak état du Sénégal kon yeneen commune yi nga xamante ne ñoom lañ ci connecté 17 communes ñun ñoo ci jiitu parce que la commune de Hann Bel-Air n'est pas la banlieue c'est un quartier périphérique de Dakar alors Maristes yëpp amul assainissement cité Elisabeth Kër Yara assainissement ba fa nekk ñoom ñoo làmb seen poste. mais est-ce que tamit assainissement nga baal ma de dama leen relance rek assainissement nekkul l'état du Sénégal moo koy porté ou pas pas les la pourquoi état di Sénégal connecté ci 17 communes si seen i xarala seeni i xam-xam ak plan yu bind ci biir projet boobu laa lay wax biñ koy defar nii barki dem Thiaroye sur mer amuloon restructuration moo ñu yàqaliwaat mbedd yi defaraat ko amuloon régularisation foncière ndax am Bel-Air da ko am Thiaroye dafa fëgg ci taabal man fekk naa réunion boob bokk naa sax ci ñi appuyé woon waa Thiaroye ndax ñu am restructuration ak régularisation foncière ndax Thiaroye sur mer Ngor Wakam Yoff Yara quatre-vingt-cinq la am décret bu leen def village traditionnel alors dëkk yooyu dañoo wax ak ñoom seeni maire seeni waa dëkk taxaw taxaw bi war ba état du Sénégal connecté leen ci baie de nga xamante ni ñun ñoo ci jiitu ñun waa commune bu Hann bel ñun waa Yaraax suñu maire waroon am plan de développement local bu war bind ay projets yooyu war a tax état bi jël ñu boole ñu ci projet yooyu te yooyu nee naa la Pfeiffer bi gagné marché bi à dix-huit milliards biir ISRA 1 la nekk ñoom ñi ngi kaas lu tax connecté wuñu leen suñu commune boo bu ñu laxasee xasee fal la mission bi ci war ak wàcce sa bopp bi ci war yaa ko war a def yaa war a ut xam-xam yi ak yoon yi nga ko ba di dëppale lépp loo xam ne xam-xam la ba sa commune am ko euh, aberration yooyu euh, moom moo ñu moo tax a jóg alors euh, am na leneen tam loo xam ni lu yéeme la mm. waaw parce que man ñu nekk cent mille habitants am un capital humain boo xamante ni xeetu doom bu nekk commune Hann Bel-Air am na ko am ko fi nekk fukki at ak ñett yor huit milliards de budget di ko fooye doo ci gis benn njariñ fenn ci commune Hann Bel-Air boo xam ne lii réalisation la ay tappale rek boobook léegi ay taf yëngal surfacturation euh, deux mille quinze déjà commune bu Hann Bel-Air quatre véhicules la ñeenti oto ñuy consommer pratiquement soixante millions d'essence miiru armeel yu yaraax yi ñu laso ko yokk ci ñaari rangée armel yaraax yi village traditionnel hmm. partir ko vingt et un millions et poussière boo ñëwee ci am beller euh, am na benn mbaar benn case booy gis foofu euh, ak euh, benn parking nee na moom quatre vingt onze million la ci def et poussière nga jël armeelu an village yi soixante six mètres moo ci daan mu facturé ko vingt trois millions nee nañ an village léegi am na pavage beneen tàppale mi ngi noonu pavage boobu ñu def ci biir Hann Village gros porteurs yi man ñu fa jaar yooyu ay jafe-jafe la amul assainissement Hann Village mooy village bi dëkk ci commune bu Hann Bel-Air pratiquement depuis ay 1904 ou 1909 su ma juumul benn dispensaire moo fa am boobu ak depuis lors benn école élémentaire Doudou Mbaye amul dara pratiquement nekk ci insécurité totale et l'insécurité dans Hann Bel-Air les Maristes c'est environ quarante mille habitants quarante mille familles amul assainissement insécurité totale suñu yoon yi baaxul yooyu ay waxtaan la tey yu ñu war a amaat ay plan yu ñuy tëggaat des journées de réflexion des semaines de réflexion. si noonu da ngay dikk yow nan euh, loolu mun fee. mais ay laami euh, déjà benn. surtout si côté apport financier. xam nga tey euh, la baie de Hann rek hmm. est plus important que tout l'or di Sabodala suñu exploité la fa nekk yëpp xam nga parce que la baie a trois fonctions majeures une fonction économique une fonction touristique et une fonction de détente amul dara bu baie de Hann di jural njariñ commune bu Hann Bel-Air at yi di ñëw dinañu fexe ba njariñ yooyu di jóge ci baie ñun ñu fexe ba di ko exploité c'est des ressources euh, financières la mission bi war ak état du Sénégal dans les grands travaux de l'état du Sénégal mais la mise au ak entreprise yi les cinq cent entreprises dans la commune bi war mhm. nañ ko def ba nga xamante ni lépp luy wërsëg foofu mhm. dinañ fexe commune bu Hann Bel-Air di ko jariñoo oh. mais également euh, dinañu fexe ci at yi di ñëw comme le parc de an nga xamante ni mi ngi ci suñu périmètre communal mm. mu nekk forêt classée dinañ demander ak l'état du Sénégal ci waxtaan yu yaatu ci ay xam-xam yu wér sa déclassification def ko un patrimoine communal mm. yooyu daf ñuy jural yeneen i njariñ mais tracé originel bu commune bu Hann Bel-Air mi ngi jógee mi ngi mi ngi jógee euh, Sir ah. Sirnos Malick Sy ba buntu Pikine mm-hmm. parce que Dalifort était un quartier de Yara mm-hmm. yooyu waxtaan waat la état de Sénégal waxtaan également ak commune bu Dalifort woo leen ci ay journée ñu réfléchir ci nan la ñu mën àndante dans l'intercommunalité mais quelles sont les communes qui sont am nga ak yan yoon la ñu war a jaar ba nga xamante ni suñu koom dina gën a ñoŋ ba nga xamante ni lu ñu bëgg yegg ti suñu dëkk dans l' intercommunalité mën nañ ko def t'as vu lëkkaloo bi ñu war am ak la ville de Dakar am ko également dans l' intercommunalité ak euh, euh, la commune de Plateau am nga Thiaroye-sur-Mer am ko également ak Petit Mbao am ko ak les 17 communes qui sont connectées yooyu mooy xam-xam yi nga xamante ni moom moo fi nekk lii nag ay waxtaan la ay lël la ay yéene rek lañ ci am buñ ci tollee yéene yooyu dañ ko def pas-pas def ko dëgg def ko ci sur le terrain donc yi mooy xalaat yi nga xamante ni war nañ ko mën a andi yu yees yu bees sax ci suñu biir commune. waaw dañ koy jeexalee si sa kàddu gu mujj avant sa kàddu gu mujj la wax si employabilité des jeunes lan nga si fas yéene def fan nga ko yóbbu ak euh, tamit lancement tey la affaire bi jeex à presque à minuit wax. demain je pense demee à minuit. waaw ah, lan ngay wax. population de Hann euh, déjà def nañu benn caravane ñun dimanche passé euh, muy une démonstration de force euh, quarante kilomètres de communes yi lañ bëggoon def mu dul mat dinañ ko mottali dimanche dinañ ko mottali vendredi incha allah demain dinañ ko mottali def tout maris yëpp dugg ay cité belle vie ay Fort Bec yooyu mais employa employabilité des jeunes boobu ngay wax mm. moi je pense que ci intelligence artificielle ak ay teg li ñu ci mën a def ci xam-xam kenn xamul lu mën a jural commune bu Hann Bel-Air hmm. Hann bel amul bibliothèque populaire communale hmm. amul foyer des jeunes hmm. amul foyer des femmes amul chambre des métiers yan lëkkaloo lañ war a am ak école de formation yi fi nekk xam nga ba nga xamante ni lépp lu fi petit commerce xam nga ak les nano entreprises yooyu la ñuy développer dans l'avenir pour que employabilité boobu ngay ne day nekk entreprise boo xamante ni ay jeunes ñoo koy monte di ci moom tabax également ay immeubles yoo xamante ni dans ci intelligence artificielle da fay dugg di jaay xam-xam di jënd xam-xam di fa fay xam-xam àdduna bi tey foofu la toll donc liñ ci wax lu wér la ay xam-xam yu leer la du ay fo du ay tappale léegi nag ci insécurité bi lëkkaloo bi nga xamante ni commune bu Hann Bel-Air war na ko mën am ak gendarmerie bu Hann amu ko lëkkaloo bi mu war a am ak commissariat bu Bel Air amu ko lëkkaloo bi mu war a am brigade bu Maristes amu ko alors yooy yëpp ci at yi di ñëw mën nañ ko waxtaanee sax ak état du Sénégal ba nga xamante ni ñun war nañu mën a góorgóorlu ba amaat police municipale. ànd ko tamit ak état bi parce que yooyu yëpp dañu naan non commune mënu ko. amul ñun dañuy nekk dans la proposition. dans l' argumentaire et dans l' argumentation di dimbali état bi ci muy nekko ay xalaat yu bees a ngi nii. lu war a mën nekk la te njariñ la pour état du Sénégal mais njariñ la pour suñu insécurité. insécurité bi ci jëkk mooy amul ay làmp yu tàkk biir Hann Bel-Air la baie de Hann est du làmp du fa tàkk alors yooyu yëpp dañu war a fexe góorgóorlu ci solaire bi ba insécurité boobu dootu fa am alors maintenant jàpp naa ni bu ñu góorgóorloo di am lëkkaloo yu war ak service yooyu nga xam ne c'est des services de l'État suñ ko amee ñun ñu leen di dimbali ci luy di leen dimbali également ci le petit matériel jàpp naa ni loolu war na mën mën a nekk même tali yi ñuy wax boo xam ne way état bi moo ko waral mm-hmm. non ay lëkkaloo la rek ak ay laamiso ay projet yu bëri ay plan yu bëri mooy defar an bel mm-hmm. loolu nag ñun rek mënuñu ko moo tax ma ne kaay leen ñu outil suñu amee kaay leen yorandoo mm-hmm. loolu mooy eh, la co-gestion loolu mooy la co-construction et de notre unité de notre fraternité mais de notre commune pour que les ressources ñu gérer ko autrement et mieux loolu mën naa nekk ci at yi di nekk dootuñu fal ay nit également dans la gouvernance locale Et moi, je parlerai de la commande. C'est pour satisfaire une demande sociale. yeneen mm. ci andi transparence ak redevabilité. Mm. loolu c'est très très important. aw askan boo ko yoree dërëm bu nekk war nga ko natt boo ko nattee ba pare war nga ñu wax fan la dugg ak fan la jaar. Mm. at yëpp loolu amul ci commune bu Hann Bel-Air rawatina ci 13 ans yu mujj yi. alors donc loolu la ñu wax que en tout cas euh, ñun dootuñu nangu kenn di ñu jiite ci ay tappale. Euh, fi may daanelee mooy bu bari am na fi diplôme yu bari am nañ fi. li manqué dëggantaan tey dans la gouvernance locale à la commande li manqué mooy diine ak ngor njub ak ragal yàlla njariñ ak yërmande population yi sonn nañu yaay yi sonn nañu doom yi sonn nañu góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñëpp sonn nañu alors il nous faut les aider man nañ sax mën a dem ba di réinsérer ñi nga xamante ni dañoo nekkoon ay prisonniers mais les handicapés mais le troisième âge donc ñooñu ñëpp war nañ mën a utal ay semaines de réflexion des journées de réflexion ñu xalaataat ci ban nekkin lañu war a nekkee tey ak ëllëg xam nga ci mbiru maraîchage le parc de Hann pour peut nous absorber toute la déperdition scolaire mais tous ces petits tous ces gens là les handicapés euh, la réinsertion des prisonniers mën nañ ko am ci lépp loo xamante ni euh, élevage la volaille ak agriculture dans ce que l'on appelle les métiers les emplois verts le parc d'Anne également pour nous aider dans les emplois verts les métiers les métiers animaliers beneen aberration bi gën a mag tamit fàtte woon naa ko euh, parc d'Anne euh, 60 hectares la administration la mais parc d'Anne dafa am benn espace 80 hectares yooyu ministère de l'environnement dafa jël 20 hectares zoo bi jël 7 hectares mu des 53 hectares mais dafa am benn place bu ñuy woowee un jardin ethnobotanique jardin boobu depuis 20 ans ren la Suisse yi def ñoo koy financé depuis 20 ans njariñu jardin boobu mooy dafa am lu tolloo quatre cent espèces d'arbres yu ñu fay yar en voie de disparition ci kaw suuf daanaka amatuñ ci kaw suuf suuf si depuis vingt ans ñoo koy financé benn yoon commune bu Hann Bel-Air taxawu fa maire am taxawu fa mais li gën a yéeme mooy góor góor lu ñu sax ba ñu former benn ethnobotaniste bu dëkk ci biir commune bu Hann bel loolu aberration bu mag a mag la alors donc yooyu dañ ko war a corriger dans l' avenir beneen bi gën a mag ma fàtte ko eau am na fu ñuy wax montagne six ci booru géej magasin fële am na kër yoo xam ne ba léegi amaguñu eau potable am la mooy aberration entreprise yi joxe ndox di jaay ndox xam ngeen leen suñu biir périmètre communal la ñu nekk suñu en suñu commune tëggul ay plan tëggul ay projet tëggul ay yoon amul laabisoo bi war ak ñooñu ba nga xamante ni war nañu mën a am eau potable alors yooyu ay jafe-jafe la ñëpp bëgg toog di seetaan seetaan nag dafay jeex te seetaan également nit ku baax du ko nangu mais way gëm yàlla du ko nangu ndax maam aadama seetaan bi ko àll yi rab yi ak gàncax yi seetaanoo bi mu tooñee boroomam ci biir aljanna yére mi ñoo jëkk futteeku bàyyi ko muy daw di fu mu làqu yàlla ne lu seen yoon am nga mais comme seetaan ngeen ko nag ba jéemu ko mu moom moo leen di jariñoo ba keroog jaam ñi dajewaat looloo tax ñu ñuy jariñoo àll yeeg rab yi ak garab yi ak gàncax yi kon nit du seetaan olof sam nee nañu ku attewul xuloo di nga atte xeex yooyu moo ñu wàcce ci mbedd bi maay président bu CRAB mooy la concertation des riverains et acteurs de la baie de Hann pour l'environnement c'est environ cent associations ñu bi mujj réalisation bi mujj bu ñu def on a amené un conteneur de cent millions may ko suñu commune Je suis le président de Domo Yara. On a donné 10 000 cahiers la première année aux 8 écoles élémentaires. À l'époque, c'était 8 écoles élémentaires. Léegi la nekk 9 avec Daara moderne boobu nga xamante ni bon tàppale la bu mu donc temps bi mayewoo euh, deuxième année ñu joxe 45 cartons de rame de papier 24 cartouches. troisième année ñu reboiser les huit écoles élémentaires quatrième année ñu dem sem an reboiser la devanture embellir ko dugg ci biir école bi yan doom yan yaay ñoo man u fayal seen njaboot ay blouse man leen fayal inscription ñu fayal leen ko waaxu dem suñu yoon mais may président këngam yaraax c' est environ vingt c' est environ cinquante ceintures noires la triple championne du Sénégal est dans mon club on a trois arbitres yoo xam ni au moins ils sont sur le plan international international alors mais je suis le président également de Unis par le sport parc de Hann nous nous sommes constitués là am na ay xale yoo xamante ni ci fitness ñoo ko fa jëkk def constitué amuñu ñi ci bari ci ñoom amuñu diplôme académique ci ñuy entraîner ñuy coach yi ñu fexe ba fay leen formation fexe ba ñu nekk des moniteurs diplômés lii la ñuy def depuis vingt cinq ans ak suñu commune ndax man maa ngi commencé ma vie communautaire en classe de CE2 avec la Croix-Rouge alors lu ñu gëm mooy ànd ak suñu askan ci ànd nawle nga am mbaa nga ñàkk nawle nga yooyu nag moo ñu wàcc ci terrain bi euh, ut si wuñu oto ut si ñu kër ut si wuñu alal ut si wuñu liggéey nous ne sommes pas maire chômeur retraité nous sommes encore en activité donc yii moo ñu wàcce ci terrain bi bëgg rek amal njariñ suñu askan tekkee fi tekkil fayra manee fi manal fayra xamee fi xamal fayra et quand je parle de Yala je parle de toute la commune de Hann ndax ñu am <coughs> des quartiers verts am des écoles qui fonctionnent correctement un système sanitaire qui fonctionne correctement un capital humain qui fonctionne correctement lépp ñëw ci at yi di ñëw en tout cas maa ngi woo population si si suba la suba la campagne di jeex à minuit lan ban ban kàddu mooy nekk sa kàddu bu mujj à l'endroit de la population de Hann bel waaw il n'y a pas de solution à la paix c'est la paix qui est la solution maa ngi woo ñëpp ci jàmm maa ngi woo ñëpp ci juboo ak ci déggoo ñu dem wote ci jàmm may woo euh, population yëpp yu war a ci Sénégal waaye rawatina ci commune bu Hann Bel-Air nañu dem wote ci jàmm ñibbi ci jàmm ku yàlla jox ñu sant ko gërëm ko félicité ko te ñaan nañu yàlla ñun gagné au soir du 23. Euh, beneen bi euh, suñu carte bi mooy bu orange bi am boppu xar bi boobu moom mooy suñu liste la troisième voie sàmm jikko jàmmoo jariñ Sénégal donc moom mooy bu orange bi am carte bi mooy bu orange bi am boppu xar bi ñu ngi leen di woo ngeen jël ko mooy bi nga xamante ni mooy bi mën a jariñ tey ak ëllëg Hann bel ci njub ak ragal yàlla ci diine ak ngor ci njariñ ak yërmande donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci bi ñu tàmbalee ba léegi ci population yi yëpp yi ànd ak ñun di ànd ñun ci gëm rek que ni war nañu mën a andi njariñ ñun également plébiscite moo ñu andiwaat fii kon niñ ko association yi doon defee mooy ndénkaane ko wóolu kon nag yàlla nañu am belleer jig yàlla nañ ko jig yàlla buñ leen war yàlla buñ ñu war lépp lu ñuy def rek yàlla na ci dëgg jiitu am nga yàlla na ci njariñ jiitu en tout cas yii lañ amoon pour di ko wax toute la communauté de Hann Bel-Air toute la population de Hann Bel-Air euh, di woo tous les candidats également ñu rester serein euh, le jour J lépp passé ci jàmm et que le meilleur gagne vive la commune de Hann bel